candidat euh, en 2012 nga jàpp ni Macky Sall euh, moo la gën profil moo la gën programme nga ànd ak moom euh, ndax jàpp nañu ne tey en mille 2023 ñu jëm mille 2024 ci élection nekk nga candidat ndax mën nga gis keneen ku la gën programme gën la vision nga ànd ak moom. bien sûr pourquoi pas ma def ko déjà j'ai montré l'exemple concret je l'ai fait. Mm-hmm. ak ñi ma àndal. Mm-hmm. mais pourquoi pas toog na ci tasante koo xam ni wala ñu gis ñun ñoo xam koo xam ni nu gën a jub programme gën si jekk gën a mën a jàllale affaire bi en tant que locomotive on est on sera ensemble. d'accord mais loolu est-ce que du du jeu du jeu booy jouer donc jeu par exemple candidat la uniquement pour après nga négocier pour après nga bokk pour nga mën a cëru après. lenn moom xam naa ko loolu bari na fi. ah bon non xam nga li may wax am. <laughs> d'accord bari na <laughs> man souvent. bari na fi mayoo bokkoo ci. dama ne waaw bari na ñi may laaj di ma wax ni par exemple du man rek mhm. man bokkuma ci moom moo ma gënal. Mhm. te d'ailleurs ma manière de faire la politique elle est atypique tous ces Sénégalais le savent me le disent parce que sa nopp amul kubéer maa ngi déglu ñëpp. Mhm. su ma waree jël samay responsabilité je les prends du xool gauche ni droite damay xool l'intérêt du pays ma jël ko. soo fekkee ne jël nga ay exemple yoo xam ne mën nga ko teg sur la table que j'ai pas pris mes responsabilités ngeen di ko. mais man Sénégal moo ma ñor. bon d'accord mais maître da dama la dama la ni est-ce que nekkuloo di.